Euh, du ñu waxtaan ak yow ci li nga xamante ne moom mooy koor te duñu waxtaan tut ci yow ak làmb mhm. ndax bien vrai que ni seet woon nañu waxtaan ak yow mais dañuy ñëw ci li nga xamante nii rek mhm. mooy euh, phase bi mhm. mën nañu wax ni phase finale sax ndax euh, gis nañu Eumeu Sène junior ñu ngi la ko doon wax da nga tardé ci làmb ñu ne Eumeu Sène amul base amul base que ni Eumeu Pikine gi mu demoon ñu bisiwaat géejawaay ak Jurbel bu mu dëkk moom moo tax base bi des. Mhm. ñoom loolu la ñu wax da nga waaw da nga fenn sur place loolu tax amoo base dëgg base bi kon mbër yi base bi ñu waaw léegi loolu dama ciy sawar pour tontu si bu baax a baax a baax a baax ama seen junior amul base su koy wax peut da nga xamul ama seen junior dama koy wax tout le temps que lenn moo xawoon tardé suma làmb lenn moo xawoon wàññi sama mbooloo moo que nekkoon école moo fa dem jóge fi dem bul faale. Pikine Guédiawaye xam na ne ay rival lañu si làmb loolu moo xawoon samay supporters yëpp ñu ne tax bu dee en cadre Diourbel bu dee cadre Diourbel bu dee cadre Diourbel foofu dinaa fa ñëwaat ñëpp bàyyi boobu bu dee cadre Diourbel saa su ma amee komba waa Diourbel ñi ngi mobilisé wu ñëw ku ci mel ne grand Étienne ay xawsu xam nga waa Diourbel yëpp suma waa koñ boo yor sama fan sa club bi ay pompet Ali Seck xam nga Mbaye Seck Sita booy dañuy mobiliser wu ba mu baax ñëw kon man peut-être loolu wax doomu aadama la rek ñoo naan ay diw amul baas suma baas moo nekk fii géejawaay yaa ma fekk sama biir koñ fii laa fowee sama enfance fii laa ko defee naam Jurbel laa juddoo mais sama enfance fii laa ko defee koñ bii nii fii laa fowee fii ñu toog nii fii lañ doon nekk laal bal toog ak luñ mënta fi ñu ko doon defee ak suma ay xarit mm-hmm. kon sama base mu ngi nii. Mm-hmm. Diourbel nag sama cosaan la sama dëkk la Diourbel. tey ji bu noonu Ndakaaru dañ koy tëj ràpp comme ni ñu ko tëjee nii nag ku ci nekk na nga génn dem man damay dem Diourbel toog fa waaw ah. doomu Diourbel la mais Géejawaay laa yaroo. ñoo ma tàggat. loolu moo yàqoon sama laam mooy mu jóge woon Géejawaay dem pikin bul faale fii benn mbër moo fi kon supporter barki Serapha muy Balla Gaye man li ma naan génn fii amul mbër bu ko daan génn amul. benn Balla gi mu fekkoon supporter ay kara ñu daan taxaw fii billaay wallaay bi ma demee Pikine nag la la ñu bari tee seen tànk. Mm-hmm. parce que da ngaa jékki-jékki dem. waaw lu ñu ma yóbbu lépp ci affaire kilifa la woon su may mag ñoo ma yóbbu woon. Mm-hmm. xam nga te man li ma gëm sama àdduna mooy affaire kilifa dama ko sopp samay mag ñoo ma yóbbu woon ma dem ci seen digal mais bi ma nekkee demee ba nekk nit bu nga xamante nii xam nga ba nga demee Pikine tamit gisoo fa sa bopp. non du ma ne gis ma sama bopp si parce que fi nga jógee gars yëpp topp la àdduna ñëpp topp la ama seen mhm. nga dem dëkk jàmbur mhm. ah, ni nga waroon nekk à l'aise doo fa nekk à l'aise ama non peut-être Pikine mais biir igir bul faale maa ngi waroon sant sama bopp pour cent mhm. parce que ñu ma doon satisfaire ma cër defoon nañ ma ci yaakaar yi tamit mais peut-être supporteru Pikine moom mun ma ko foon am ba boo ko am benn yoon ko fay am wala yeneen mais sama mobilisation fii la nekkoon ba boobu tamit saa su bëree fii même tontu moo naan dem gàtt gàtt lu mel ay discar dana jóg mais même suñu jëf yi dina dem buy dem dina wàññeeku na moom. mais dina dem non dina ëpp benn moom <laughs> ay <laughs> benn moom mais xam nga loolu yëpp mooy indi woon erreur la woon. Uh-huh. mais instant bi ñëwaat naa ci suma gox. Uh-huh. li ci gën a neex mooy dama ñëwaat si équipe bi ma di nuyu de passage di nuyu président bi si la ak di nuyu aussi tamit staff yëpp yëpp yëpp yëpp course maa ngi di siyaar di siyaar yëpp maa ngi di nuyu bu baax a baax ma ñëwaat ñu tegaat ma sama place parce uh-huh. que Serigne Bamba di nuyu aussi tëdd fi lu guy gi. ñoom ñëpp ñu tegal ma sama place wan ne ma fii sa alal la danga fee bokk. boo ko gisee sama combat mu mujj billaay wallaay booy yëpp nit ñëw na xëpp ma gaalaaj man ma bàyyi mu sedd man maa doon calmé ñoom. yow mii barke suñu kon Alioune Seye day jariñ rek noonu la faa répété. sama combat bi man sotti nañ ma gaalaaj benn bi xaw ma sawlo xaw ma lu mu doon sotti nañ ma ñaari yoon. ci biir géew bi damay dañ ma fekk foofu sotti ma may calmer sama booy yi beneen bi dañ ñëw ba tiim sama tumbukaay sotti ma. Ah, lépp may calmer sa ndam. non man de nature de ku ma xam dëgg billaay wala la nga xam ne man coow nekkul ci man xam nga kañ la coow nekk ci man. arbitre ne ma ne la am dóor la ma dóor mais nii nii nii ci mbedd nii coow ci man. xaw ma histoire yarawuñ ma ko sax. moo tax gars yi moo tax kon gars yi di la tooñ naan la sa fit day maas. waaw bu leen neexee ñu wax sa fi day maas mais mbër ci biir géew du jàkkaarloog ma ne mu sa fi day maas. amul. bët mën naa nekk baka bëtu ngàmmeel la ñu dañoo am bët te dañuy ko hmm. waaye ñit du ma yab. Hmm. ama seen day yéeg di wàcc. Hmm. mbëru dollar la. loolu la gars yi di wax. day yéeg ba gaay noo yow. yow tamit mbëru dollar nga déglu ma rek waxuma bu mag danga may déglu. man may euro da déglu non dollar nga da ngay yéeg di wàcc parce que Eumeu Sène fi nga nekk nii waroon na koo dépassé bu yàgg. Mhm. bu yàgg sax. Mhm. mais da ngay yéeg wàcc. Mhm. wàcc yéeg lu waral loolu adversaire yi ngay jël la. ndax ñu bari nee nañ Eumeu Sène fii nii instant bi waroon na koo fekk muy bërek ñeneen ñoo xamante ni macha allah. mais chaque jour booy yi nga xamante nii rek mën nañu génération yi ngay jël. waaw <laughs> loolu <laughs> wax doomu aadama la rek. mais man loolu moom yaa ngi ko mais man d' accord naa am naa tardement si lamb mais yéegu ma wàccu ma. Ah. defoon naa nii jékki-jékki amoon naa fracture ci lamb dama amoon fracture dama dammoon. amoon dama dammoon toog naa trois ans bëreewuma. loolu suñu borom moomu ko teg dugg naa ci oto oto bi këpp def kat tono yor naa sama moto di dawal auto jël ma sama tànk damm. Oh. waaw mais loolu noonu ñëpp suñu borom moomu ko teg. waaw bu fekkee loolu mooy doral gi moom d'accord naa nekk dollar mais loolu yëpp suñu borom moom ko teg mënu ma moom ko teg mënu ma ci du question que ay dama dama kii wala dama dama dama nekk dollar dama yéeg ko si jaar. Mhm. yaa nag d'accord tey jii dañu waroon wax Ama Baldé Eumeu Sène Junior micro micro mhm. koy waxee ci yenn émission yi rek naan man a ñoom ñoo bëree ndoo. ok man ak ñoom ñoo bëree ndoo. Mhm. gars dañ bàyyi di ma wax naan ma man mag laa bu ko ci wax mag laa tamit bu ñu diggee ci biir dama la koy woon parce que dama lay mere. kon dañ la koy wax. waaw bu defa Bour Sine bi da doon ma ak kii yëpp booy bi dëgg tënkee comment dire que sax. wax ma naa ma yow paa nga mag nga li ma leer mooy maguma leen. c'est vingt deux douzième mois quatre vingt huit ñii ñëpp barki Sëriñ Bamba xam nañu bu ñuy samay mag lañ samay papa. te bu may bëree arène barki sëriñ ba man sama as dañ koy yokk tur bu defaroon ma 40 sax man 89 laa waroon bëree ñu defaroon ma 88 ma dem bëri ji arène te boobu laa am 18 ans damaa teel a bëri pare damaa teel a am tur ci làmb. Ah, parce que ki tane naa léegi sax mais ku ma def ku ma jàkkaarloo comme léegi ni ma daan xaaree daaw ma xaar kenn. Mm. ma jàkkaarloo dama naan maa la mën damay dal sa kaw.

sa diggante yéen ñaar la moo taxoon nga tuddee ko sa bopp Eumeu Sène. waaw suma xarit ma la woon doon ñëw suñu gi maa ngi koy nuyu de xam nga doon ñëw suñu kër moo góor gi ay lañu woon. ma dem ba xam nga. góor gi boobu sax moom mu yóbbu taasi nga. xam nga ma dem ba tey jii jël sama bopp tuddee ko ko di bëree di ko doon toppandoo ci pied droite boobu muy teg ma si toppandoo ñu may daan. ma dem ba ma ne kii daal lii suñu borom mu ko may la naa teg sama pied gauche ma yàlla suñ borom jox. mais ñaar amoon ngir relation bu kii. waaw Eumeu Sène amoon nañu relation parce que bokk nañu écurie yi. waaw dañ daan demlante boo amaan combat ñun du ñu am jàmm du ñu am salaam su ñu amee tamit su ñu yenn combat moom daan taxaw. waaw daan nañ ñëw kër yi parce que loolu wareefam la c'est suñu wareef la boo amee combat day ñëw këram su ñu amee combat dafa war ñëw suñu kër. nii doo ñëw seen kër waaw même combat xam nga ñoo na géejawaay. am na géejawaay mhm. Mhm. te loolu mooy yoon sax. parce que mënuñu may ndax ma may xaalis mënu ma ko may xaalis loolu lañ mën def mayante. mooy ko contact ak demalante. Mhm. boobu yéen a ngi bokk écurie. ah mais ba nga ñëwee géejawaay ba léegi yéen ñaar seen yoon Kër Matar Ba Ba invité woon ko Fatick. benn drapeau bu ñu ko tuddee woon invité waale sama benn grand jibi jibi fay yóbbaale ma. am <laughs> Matar ba sax su ma je me rappelle très bien mu naan teere ñaari ëmb laa fi am. Mhm. mais man moom bokk ma woon ci invité jib moo fa yóbbuwoon jibi fay maa ngi ko nuyu de passage. Mhm. moom fa yóbbuwoon am seen moo nekkoon invité bi. Mhm. mais après ñu dem fa après tamit may ma xaalis su bari macha allah ñu koy nuyu de passage. waaw. yéen a ngi a wax téléphone yéen ñaar. téléphone non non téléphone moom waxuñu ko. xanaa tuddee ko sa bopp. non man su ma rëb laa tudd loolu

dama ne la Eumeu Sène Junior nga ne ma tudd ma Eumeu Sène Junior bas bas ma yéen ñaar yéen a bokk defal naa ko bas yéen ñaar yéen a bokk wasaare mais maa ngi moom ñoo bokk lu mu séddoo bas ñoo bokk njaareem dama ne la Eumeu Sène Junior laa la wax nga ne ma tudd ma Eumeu Sène Junior sëñ Ablaye laa tudd waaw sëñ Ablaye Fall laa tudd waaw maa ko wax waaw ah moom moom ndax ngay buux ama seen junior non ko xam nga wax naa la ne nga ne ma boo démb doon tey doo ko tudd mën la si ankay waaw parce que da nga da nga lu hésité bi yéen ñaar yéen déggante téléphone non déggante ñu téléphone may mais lu waral loolu may dama gis nag koo xam ne ñàkk jot la yow mënoo wax tey ba loolu du ñàkk jot non dama lay wax rek ama seen ñu koy nuyu au passage suñu mag la moom suma sama xarit la maa ngi koy nuyu Seydou Khoudia di la wax ni nit xam nga nit képp koo tuddee sa bopp rek yéen ñaar am na affinité boo leen am. dañoo mhm. xam te dëgg. Mhm. ndax man mënu ma concevoir nga tuddee sa bopp Eumeu Sène ngay champion nekk booy yow nga ne koo dégg naan ba ma ko gëjee gis sax Kër Matar ba a quelque chose yéen ñaar seen diggante lu xew. ni ngay waxee ci français y' a rien à chose dara daal foofu amul yaa nekk sa coin. waaw dafa jàpp ma jàpp kese amul chose bilaay amul chose. mais te déggante woo leen téléphone. yor nga numéro Eumeu Sène. numéro Eumeu Sène jaaxal mi sama téléphone bu ndaw bi nekk kër ga waaw. Hmm. Isaac Doko grand. dafa amul jot amul jot kay Fatima nag xam nga nag wax dëgg yàlla alpulaar li moo tax ñu compliqué yéen da ngeen topp séeréer ah, neexul dara nag émission dox nga bëgg maa sës ci miir. pour yéen si Wassare Lamb Wassare TV gis ngeen Eumeu Sène ah, ni may def mais lépp yéen laaru seen ñi nga xamante ni ndeysaan yéen yéen a may yàpp léegi kay baax na gis nga Eumeu Sène après yéen yéen a rek Eumeu. Ah. Euh, sa combat ak Bour Sine moom nga mujjee bëre. ñu nuyuwaale suñu papa Xaadim Samb mu nekk combat bu bari coow mu nekk ba pare nekk sa goro. père Xaadim mhm. Samb mhm. nekk sa goro. est ce que nekkul woon ne li nga nekk goroom moom moo tax ba pare ëmma gis nañ tamit ay tubaab dar la woon ëmma tubaab yi dar la ñu ne dafa dañoo fay ëmma seen xaalis bu bari gis nañ ni ëmma seen sax suy dem entraînement sax tubaab yi yow lu waraloon loolu da nga amoon benn contrat boo kii boo signé woon ak ñoom. non xaalis am laa signé woon contrat. ñi yoroon wàllu dé wàllum documentaire maa ngi nuyu de passage Babacar maa lay siyaar Tino maa lay siyaar Babacar après yow maa yow lu ñu war wax bari na xam nga. contrat laa nekkoon ci Xaalim Samb Xaalim Samb moo fi indi tubaab bi moo tax ma xamante ak ñoom yàlla suñu borom ci moom la jaarale. waaw ma rempli ci contrat bi. ñu fayal xaalis bari. xaalis waaye bu dee bari tamit jeex na la. xaalis bari jeex na de. <laughs> xaw ma mën naa mbari waaye jeex na de fan de. <laughs> ba nga jugee ci ba nga jugee euh, promoteur yi ñu ngi lay contacter ñu ngi la doon contacter. waaw bariwul li ëppoon ki may wax nag mooy Maama Lamine. du déggoon naa fi ay kii ki ki dëgg dëgg doomu doomu Dangu Zakura. Mhm. déggoon naa ko fi. Mhm. mais li ëpp lu ñu may contacter mooy Maama Lamine. mais man moom. Mhm. Baye Mandione laa bëggoon bëreel quoi. Baye Mandione parce que mënu ma jeexal booy. Hmm. mais yow mu bëri ay général Malika wàcc ay général Malika ay limousine ay mënuma jeexal booy. général Malika man. benn Dango. waaw. Zé tax keroog ñu koy laaj ay defetam Zé ma nu bàyyi noonu quoi. Zé ko booy raadaan. ah da doon bañ a wax waaw mais pourtant da koy wax de moom Djigo champion moo ne si moom. Zé defar affaire ah. ma bàyyi ma ñun nga ne bàyyi ma ñun. waaw parce bëgg naa bëri moom. moom moo ne ci escalier bi moo ne ci escalier bi xam nga ciblé wu ma ko nag pour moo ko amee baax na moo ko amul ma amul dina. parce que est-ce que xam nga dafa am bayre booy yi bëgg a bëri moom mais nag ñi mu bëree la tax. non mais loolu bayre yow bayre ba ñun fu mu débuté ku fa débuté da ngay am bayre simb da ngay am bayre par force yow de yow borom mën fii simb da ngay taxaw. Euh, baam ñoon di champion. kenn da ko waxante mais dama ne la fi mu débuté yow gaynde yi lu ñuy gën a sangu seen àdduna bayre fu mu génn ñu naan gaynde gu mag gaa ngi ne. ki ci topp keneen kaa ngi ne ke noonu la ngay wax waaw kenn kay yow kay jeex na Baye Mandione kay li fi mu jaar ku fa jaaram bay rek seen àdduna bay rek lañu sangoo suukar xorom suukar man rek raayoo ko demee <laughs> jënd seen li tax nga bañ ne reel la. ne ko réel ban. ne ko la contacté wuñu la sa combat ne ko Nekkureel contacté wuñ ma de asafurlaa Tafa Ndiaye sànq mi ngi ñëw fii. Mhm. naan am na ko wax sama combat Nekkureel. Mhm. mais contacté wuñ ma ma Nekkureel. mais tey bu ñu joxoon avance am nekk tamit naan dama war a dem tamit di xaar ñoo xamante ni seen làmb soriwul na ci suuf de. damay xool sama arrangement bu baax a baax a baax. ok waaw parce que des fois gars yi dañuy am promoteur. Mhm. waaw man amoon naa promoteur mais moom ay mbiram sama papa la sama góor la mais. des fois tey mu ne day tëgg bu soobee daan tëggul. kan la ah Xaadim Samb. Hmm. ah moom mën naa tëgg tey bu soobee mënul tëgg. Hmm. daa kon day tëggaat. Ah, waaw kon damay tëggaat de waaye waxaatu ci dara de dëgg yàlla xam naa daa jàpp est jàppul. beneen bi booy tar mais damay wax jigéen bi rek mu wax ko mu tëgg. ngaa boo ko waxee waa dina ko tëgg ndax jël naa ko émission saan mu naan daal sama ñaareel bi Père Xaadim Samb. yee ami ami waxal Xaadim mu tëgg dégg nga. Euh, pourquoi tarkindaa bu ndaw bi. kuy tarkindaa bu xale ak lansaar bi borobu tarkindaa bu ndaw bi. damaa xam kuy tarkindaa bu ndaw bi. ah tarkindaa bi. yow bëggoo émission bi jeex. tarkindaa bu ndaw bi. xaw ma kuy tarkindaa bu ndaw bi. xale bi nga xamante ne barki Demba Ndiaye moo moo fa def loo xamante ne ba léegi jokkeel dafa war a dem jaay jaay xaal. lu muy liggéey kooku maama Lamine. ah maama Lamine nga wax ah, maama Lamine. yaa ngi xam ne maama Lamine laay wax. tarkindaa bu ndaw bi tarkindaa man bu mag bi sax xaw ma ko. ni sa combat ak maama Lamine. gars yi naan kii te Eumeu Sène dafa bëgg combat boobu. Eumeu Sène man yow. yow maa ko wax. Eumeu Sène bëgg nga maama Lamine da nga bëgg Maama Lamine. ay waay ay waay defal ma émission doyatu la nga may alak biir mbooloo mi. mais da nga bëgg Maama Lamine yow maa wax nga bëgg Maama Lamine yow. mais ku la joxoon avance Maama Lamine nga jël ko combat boobu gaa yëpp ñu ngi koy wax. ci kaw ci kaw nu mu demee lu dëgër mu téye. waaw Maama Lamine bu ma ko bu ma ko daanee loolu naan moo lay gën a diis la ñuy wax dafa ñeme la ñuy wax moo lay gën a diis moo leen ëpp expérience la ñuy wax bu ma daanee dem ba may fay lu dëgër ma jël ko ne ko kaay ñu reyante comme dab waaw te nga may bàyyi may wax ndax damaa gaaw a fàtte dama xel baaxul damaa gaaw a fàtte. war na yàlla damaa a fàtte xam nañ ko ci man. da a fàtte ko a nga dagg ma rek. fàtte naa li ma war a wax. Euh. léegi Mama Lamine kon daal ba ñëw ba rek Mama Lamine mais buñ la joxee koppar daal bu waaw lu dëgër loo xamante ne jaral na ma. ma jaral bu ma ko fayee. mu bëre. ak moom ndax damay dëpp jëre. kon nag wàcc. buur si mais bëreeg moom sax lijjanti ma Bour Sine soxla ma Bour Sine pour bëreeg moom. Mm-hmm. ba ma bëreeg Bour sax parce que bugguma dafa dafa année balance. ok. maa dama pare ci limousine bu jël ko mbaa dama bëri limousine ñëpp ne. Mm-hmm. samay àndandoo sax à part bi ñu paree dañuy dem ñu dóor moom daanu parce ma arrière. ñu def suñu borom suturaal ma. Mm-hmm. daan ko. avec ma manière. ñëw ñu proposé ma Bour Sine Xaalim Samb ak combat bi mu taxawee affaire yooyu noonu. que kéwél sax lañ doon wax après kéwél buggul woon Bour jël moom xam nga der la moom maa ngi ko nuyu de passage ak waa. écurie Baol Baol Baol yëpp ay der lañ ay ñoom wuli de ay ñoom kéwél ay der lañ. maa leen xam nga yàlla ngaa sañ jël ay wuli de. gay nag Baol gaa ngi nii wax loo dégg ñoom reefan lañ dëkk man Diourbel laa dëkk. maa mais wuli de avance moom sañoo koo jël. wóolu la mooy kan. non man dootuma dafa am nu mu demee man dootuma ci laaj kenn ci ñoom. amul mosuma ci laaj sax ci ñoom. mosuma mm-hmm. ci laaj kenn ci ñoom. Mm-hmm. mais ku ci ñàkk taalibe ci ñoom ku ci ñàkk taalibe maanaam ku ci xëdd sa ndigalal kilifa. Mm-hmm. ba ñëw boo ñëwee ma jël la. nee na du ma ci laaj kenn waaw. saison daa ma tax ma wax loolu. saison na. Mm, a ne fi noonu nii kay virus la ñuy waaye du leneen kay. information wax de gis naa ay mbër yu tëb ka dal. information ñooy Alioune Sarr. te nga information bi. Alioune Sarr que ni instant bi daa war a dem dese. octobre bi. yow d' accord nga mu dem wala mu continuer. mbir yëpp d' accord na mu dem. non wóoruma yow mbir yëpp d' accord d' accord na. Hmm. mbir yëpp bu ñu mu dem d' accord naa. Hmm. bu ñuy d' accord ñuy des wala ñuy ëpp ñu ëpp bu waxee na dem na dem. Mm-hmm. waaye ñi gars yi leen wax na toog daal ba nga man sama combat dagg nañ ma ci xaalis bu métti sax. Mm-hmm. deux cent et quelques mille lan dagg loo xam man def ma dara. Mm-hmm. ñu naan ma da waroon a jiitu si géew wax yoo xamante ni kenn xamul te après combat damaa waroon a xew man damaa mujj lepp nag nga nag ni mu réer dama ko lepp. bu fekkee gars yi dañ dañ daal Aline Garaw demal. amul problème. Euh, est-ce que tey ba ka mbër yër CNG bi. waaw parce am na mbër yu am maturité bi. ku ci mel ne man Mouhamed Ndao Tyson mm-hmm. waaw naaw nañ ko ci ci loolu daal. Mm-hmm. waaw moom suñu borom defal na ko xanaa na. Mm-hmm. xam nga mun na rafetal kàddu mun na rafetal wax. xam na fi muy waxee waaw te mbëri am solo quoi mbër il faut que fu nga jiite ko il faut que mën koo convaincre parce que mbër dafa dëgër bopp ñun soo ñu mënul convaincre doo ñu jiite. waaw nga tegal ñu loo xamante ne te Tyson suñu borom argument boobu suñu borom def na ko ci moom. su ma nee Tyson am na yenn fu mën a mais Bécaye Mbaye war na ko mën a nekk. père Bécaye Mbaye. waaw ah. mën na ko nekk. père Bécaye pourquoi pas. Hmm. Mhm. Xadim Samb nag. pourquoi pas. Xadim Samb mën naa nekk seen si président CNG. mais ñi nga lim ñëpp pourquoi pas. Xadim Samb. Hmm. Xadim Samb daa pànk de. Hmm. waxal rek waxal bu bu ragal waxal. xam père Xadim maa ngi koy nuyu sama xarit la. <laughs> sama xarit la. waaw ñu ngi koy nuyu waaye waxal rek waxal. ma nekk koo nekk. Hmm. Père Khadim Samb mën na koo nekk. kii euh, ah? Père Ngagne Ndiaye. ñi nga déglu ma la ñi nga ñooñu ñooñu ñooy làmb ñooñu nekk parce que tamit nit ñi respecté nañu. mais a. dégg man maa lay posé man doo ma posé yow yaa. ah dañuy nga ciblé ñooñu ñëpp tey ñooñu ñëpp. a daal na xam nga li wax naan jubal ak dëggal. Hmm. wóoral da am solo xam nga tey jii fi xaalis bi dugg poko surtout loolu fi dagg bi fi muy dugg war na noo xam fi muy aw daal wax dëgg yàlla. li ñuy dagg sa turu de bari na de. bari Cheikh Fall bari na. non wax ne dagg bi kii bi nga ko daggee fii laaw fii laaw dagg bi doo xam fu la daggee li woo mu bëgg fee génn di jooy. 7 millions lañ ko daggoon xaw ma 4 millions. 7 7 millions 200. xam nga loolu loolu jënd na terrain bu baax terrain bu baax la jënd. Mm. yow 7 millions. amuma loo tàggatoo. jullit la <laughs> sept millions daa bari. waaw sant yàlla nuyu suma famille bu baax a baax a baax di nuyu suma mbokk géwél yëpp yëpp yëpp. may nuyu waa palaas bi di nuyu Père Diagne di nuyu Maas di nuyu Père Baye Cheikh Samba xam nga ñu fi toog ñëpp maa leen di caar Ndiaga Père Galas xam nga Mamadou Pape nuyu suma booy yëpp xam nga góor gi du ma tudd ndax defe naa nga xam nga di nuyu suma waa koñ bu baax a baax may nuyu waa Mbour sama waa kër yaay maa leen di siyaar bu baax a baax a baax di nuyu waa Njaaram aussi ma leen di nuyu bu baax a baax amingom maa ngi koy siyaar bu baax a baax amingom suma xarit la suma mag la may nuyu suma famille bu baax encore fois may nuyu suma famille bu baax di ñaan yàlla Sénégal jàmm yàgg fi bu baax may nuyu saa daaru suma staff saa vie kan xam nga Modou Nokas Ablaye Ndiaye suma papa suma mag may nuyu ñëpp ñëpp di nuy suma petit frère yi Bisaal maa ngi nuyu ñëpp daal su ma lumee damay jum fan bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp maa leen di sant di leen gërëm su ma amee combat ñoom ñëpp kenn du si am jàmm may nuyu suma fans yëpp sama xarit yi nekk bitim réew ku ci mel ne Ibou Ibrahima Badiane ak Papa Touré suma grand frère Balla fay maa ngi koy siyaar bu baax a baax sant naa leen gërëm naa leen waaw lu lépp lu ci daal lu ci rafet daal yàlla suñu boroom la lépp lu ci awul am aw teggi ne tamit man maa matadi rek wax ab jaamu yàlla la waaw di santaat bu baax di leen masaw coono di leen gën a baalo àq waaw di leen wax ne daal seen émission bi yàlla na ko suñu borom def lu taw feexe waaw li ngeen ci séntu yàlla suñu borom moo ko xam yàlla na ko yàlla defar yàlla na leen yàlla suturaal di la nuyu Fatima du nuyu Bas suma mbokk suma xarit luñ bokk maak moom ñu ko seddoo yéen ñaar bokk wasaare da mu ngeen ko séddoo moom day yor caméra yow nga yor micro kon mu ngeen ko séddoo maak moom luñ bokk mënuñu ko séddoo muy njaareem. surtout waaw ñu ngi koy siyaar bu baax a baax a baax ba Basiru ñu la defal suñu borom defal la taw tawféex li nga bëgg yaa ko xam yàlla na ko yàlla defal Fatima nag moom ñu koy siyaar bu baax a baax yow moom xam naa ne doo mucc ci mbëri moom naa moom loolu suñu borom dogal na ko parce que bu dagg lool de kii du mucc ci mbëri waaw. waaw maa ngi nuyu Cheikh Diouf bu baax borom ñaari tali seex Diouf maa lay siyaar siyaar naa la bu baax waaw baax na. l'émission tire à sa fin di ko béggewaat bu baax a baax moom Eumeu Sène junior mu nekk koo xamante ne suñu xarit la ba pare nekk suñu lépp wax dëgg yàlla bien vrai que ni nag daf ñuy encouragé nag bu baax a baax du ñu suivre du ñu xoj nag Fatima seetaan naa lii Fatima nangam ndeysaan ku baax la xol bu rafet la yor di ko ñaanal moom moo xam li mu bëgg yàlla na ko yàlla defal ci barke Seydina Mohamed yàlla def ko roi des arènes ndax ku baax la te sama xarit la wax dëgg yàlla boo gisee sax émission bi nii nga xam ne sama waay la di koy ñaanal daal naa ko kontaan naa ci yow bu baax a baax a baax wallaahi ndax so dama naan ko dama laa soxla rek mu ne wax dëgg yàlla ñëwal xam nga loolu ku la ko waxal rek boolal na la ci boppam di la remercier bu baax kontaan naa di remercier nag ñi ma fekk waa atelier bi mu nekk ñu baax mais su ma nee maam Fallou rek euh, sama xarit bu bees bi di ko bégewaat bu baax a baax mooy borom atelier bi sëñ Fallou maa ngi lay bégee bu baax a baax di jox sa wàccuwaay di bégewaat Séri Say mooy Séri Say moom mu ñu siiw si wasaare lam wasaare TV gis nañ nag lépp commentaire yi gis nañ ni ni ngeen ñuy doolelee gis nañ ni ni ngeen ñuy encouragé naan leen yéen ñi nga xamante ni yéenay ñuy bégee yéen ñi nga xamante ni yéenay suñu roi yéenay suñu reen yéenay suñu lépp kontaan nañ ci yéen deen wax na confiance bi ngeen am si ñun rek yàlla na ko yàlla eh, kiiwal xam ni ko olof di waxee bas ni ñu ko waxee yàlla na ko yàlla ah confiance bi ngeen am si ñun yàlla na yàlla waaye yàlla na sax ñu bal leen rus loolu wax dëgg yàlla kontaan nañ tey nag wax dëgg yàlla sama doom sama xarit Fat Bintou mu nekk xale boo xam te ni macha allah bëgg bàjjenam bëgg léppam tey moo ma def nii moo ma def ci kii xam nga man moom man ay xaw ma ko wax dëgg yàlla moom moo ma solo di koy ñaanal bu baax a baax sama doom ji nga xam te ni di lay ñaanal yaa xam loo bëgg yal na ko yàlla defal bëgg nga sa bàjjen safoo sa faj bàjjen fajja kookoy euh, doomu Barthez xale bi nga xam te ni nee naa la say bàjjan nga jël bàyyoo leen yaayoo leen yàlla na sa jaamu yàgg kookoy magu ngañ ja magu satu ja magu moor ja magu papa ja di magu asu ja waaw yow yàlla na sa jàmm yàgg daal kontaan bu baax a baax di wax rek ah diine mbër ak diine day continuer dañuy seetuwaat beneen mbër beneen champion ñu waxtaan ak moom Eumeu seen junior la tey ñu dem xoolee keneen rek mais ba léegi ñu ngi biir waaye dañuy suivre kii bi rek xoolaat beneen champion ñu jëri ko bas loolu jàmm jàmm ko gën yàlla nañu yàlla may jàmm di baal waat ñëpp ak di baal ñëpp ak wasalaam man loolu lijjanti ko moom loolu moo ko yàlla la man moom côté boobu dama siy maandu quoi mais man man barki Seera Fall su ci. lépp luy raam. baaxul baaxul baaxul baaxul doxee mbedd baaxul barke Cheikh Fall mais taw feex la taw feex la waaw ñun dañuy rek.